linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu basir assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokk jullit yëpp bokki taalibe yépp ñu ngi yëkkati nuyoo bu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moo fi tooge jataayu Serigne di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak di ko teg ci rakkam di xaritam di sëriñ Abo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ni moo fi jëmmi Cheikh Mouhamadul Fadel ci kaw suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ak mboolem rakkam yi topp ci ginnaaw yépp te buñ ci tuddee sëriñ Abo muy jëwriñam tudd ji Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moo mën a yóbbaale si tudd ci Cheikh Mouhamadou Bachir tudd ci Serigne Abdoul Fattah moo mën a yóbbaale mboolem njaboot gi yëpp kon Serigne bi Serigne bi nee na mi ngi lay nuyuwaat bu baax a baax goo xam ne cant ak ngërëm rekk a ko lal ndax yàggut ci màggalu Poroxaan gi rek fàttaliwaat na la ko wax na ne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 yàlla defal na leen ko ci barke Serigne Touba njabootu Cheikh Mamadou Fadil foo leen fekk koo ci gis day mel ni gis nga morom ja doo xam ku ci gën a bëgg morom day mel dañuy mel ni sax ay doomu bàjjan loolu tawféex la jëlee yàlla suñ borom defal ba ca des it wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw yàlla suñ borom defal na leen ko mooy kenn ku ci ne loo gis ci lu baax rek sa morom ko gën a yéene.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 da gis sax koo xam ne doontu jullit waaye day bëgg Cheikh Modou Fadil loolu la ko yàlla defal daanaka amatum noonu loolu nag loo ko Sëriñ Tuubaa fayale la ko waree itam nag mooy bëgg gi mu bëgg ba yemalewu Sëriñ Tuubaa ak dara Cheikh Modou Fadil ku àgg ci di wax ne shafqu dumuuhi li hubbil xadimi fardan araw sotti sama yoronxee ngir bëgg Sëriñ Tuubaa farata laa ko def loolu faris mën a yam ba muy jaayante ak Serigne Touba itam la gën a yéeme ci bayit ba wax ne bientu bu nu watiye bil irada lakum li kay uxsa bi xarqi aada min baadi ma staraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri manni fa taqbaluha yaa malazu karama la ziltumo benn baraya alama la ci gën a yéeme dafa jaay njureel gi jënd ko taali la ko ci Serigne Touba war mu jël ko joxaat ko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 loola nag moo tax Sëriñ Tuubaa ko li mu ko fay la ci ëpp solo yi nag mooy dafa dem ba nekk Sëriñ jël léppam jox Sëriñ jox léppam Sëriñ Tuubaa bëggut dara lu may Sëriñ Tuubaa looloo waral nag yàlla suñ borom fay ko li mu ko fay ndax ba ci ak mu jëm am na ñu doon amul jaaxle lool ngir booba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 ndax ñoo ñëpp amul ci kenn koo xam ne ñaa ngi kenn kon loolu fàggul na leen ko xam ngeen ne itam nag lu ne liggéey na ko Sëriñ Tuubaa dàkk na Sëriñ Tuubaa ci lu ne mas naa bi ne Sëriñ Tuubaa ab kawil sëriñ ba mu ubbee kawil ba dafa wax ne dafa ubbi rek yem ci wa barran bi waalidayhi walam yakun jabbaaran asiyan kon lu ngeen gis ci moom rek Sëriñ Tuubaa dafa jëfandiku ci moom moo tax màggalu Kazu Rajab ji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 sëñ Moussa sëñ Buxaari waxoon nee na bariwaa na jëneer boo seen te fekk gëlanu Cheikh Mamadou Fadi ma ngi ci biir waaye néew na ci yoon mu nga nga seen fa cër bu rëy mu jaaxala boo gëstoo histoire da nga xam ne loolee Cheikh Mamadou Fadi moo ko fa kon yàlla na suñ borom yàlla na suñ borom dolli ay leeram tataa ci barkeem jeexal ko rek ci di nuyoo délégation bi nga xam ne.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 dara mënatu ko dindi ci àdduna dara mënu ko dindi ci àdduna du laaj ba àdduna tukki tuuti nañ ci yàqu ko loo xam ne dund na téeméeri at te kenn doonu ci dara te ñun ñëpp danañ faatoo yoonu wër dox loolu kenn mënu ci dara képp ku yaakaar ku yaakaar ne mën nga caa gàllankoor daan dagay ndax saw képp ku jéeme suul mbirum Sëñ Tuubaa itam wa jaala kalimata lisina kafaru sufla kalimatullahi hiya al-ulya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 Mbàkke bilaay bu waxtu wi jegewul woon ma wax la dara waxtu wi daa jege rek sëriñ bi xool yi sedd na xel yi dal na sëriñ Xaadim Mbàkke yegsi na léegi mu Cheikh Sidil Maxtaar teewal sëriñ Moustapha ak waa guy bindi yëpp sëriñ Abdourahmane Ñang moom itam yegsi na teewal sëriñ Omar Bousso xalifa sëriñ Mbàkke Bousso ak njaboot gi yëpp